what was this for? jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee ñu ngi fii ci arène national muy journée mondiale de la lutte CEDEAO mu nekk journée boo xamante ni mbokk yi réew Afrique yëpp ñoo fi dajaloo wala bokk na ci lu mat fukki réew Afrique dajaloo nañu fi ngir compétition compétition bi nga xamante ni at bu jot day am. gis ngeen autorité yaa ngi noonu ministre des sports teew na ñëpp teew na lii mooy wane ni Sénégal ak yeneen dëkk Afrique yëpp benn bopp lañ kenn mënu koo xañ daal mbokk yi gis ngeen cérémonie officielle bi noonu dina leen dégtal lépp loo xamante ne xew na fi ci cosaan ku ci nekk ak li nga xamante ne mooy cosaanam su ko defee ñu dugg ci biir wan leen cosaan wan leen aada wan leen culture réew mu ci nekk day indi li nga xamante mooy culture am ginnaaw loolu dañuy dugg ci biir rek wan leen lépp loo xamante ne jot na fi xew aadam nekkul nag lu bees Sénégal parce que organisé ba sonn tey ku fi dugg sa xel dem ci Alioune Sarr mu organisé lu bare bari ñoo Moustapha mën nañu ko teewee jël ci ndam yu bare bari it kon su ñu dellu tey en 2021 ak mbas mi Sénégal jël ko loolooy wane ne taxawaayu Sénégal ci sous-région bi mooy locomotive lañu lu jafe war nañu ko yombal waaye war nañoo def ba bu ñu réew yi ñu répondre présent moo tax tournoi bi am solo ñu di ko defee ci arène nationale bi ñuy ñaan yàlla nag ñëpp passé ko ci jàmm ci mën gagné te dañuy yaakaar ne Sénégal dana jaar ba mu jaaroon. amul. mais j'ai vu que ni euh, nañ leen daal très bonne ay néeg yu baax climatisé maanaam. xam nga loo gis la. am na temps ñoom Moustapha ak ñoom Mang. ku nekk day wàcc dem lekki këram. bi nag dañu def ay jéego depuis président Macky Sall football rek la ñuy gis waaye discipline yi yëpp ku ci nekkoon ci benn yaa ngi ci juróom moo tax ñu njëkkër yi préparé leen mettre leen en excellente condition parce que ambassadeur Sénégal la ñu kon loolu du lu ëpp dañu war di continuer di ko gën a càmm di ko gën a def parce que loolu moo ñu war te loolu la ñu président Macky Sall première de ci Sénégal neuvième édition tournoi de lutte de la CEDEAO équipe bi nga xam ne Ambroise Sarr teg na ko en technicien de la lutte xale yooyu nan nga lay jàngatee technicien. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf dèjà ñu ndokkeel ñëpp rek ci bisu tey bi nga xam Sénégal yooyu ko bokk CEDEAO yooyu ko bokk. Eh, mérite du Sénégal nag mooy tey mooy neuvième édition neuf édition yëpp Sénégal lañ ko defee donc c' est énorme et ñi Ambroise Sarr sélectionné ay doomu Sénégal lañu. di bëre ci mbapat yi di compétir ci tournoi drapeau chef de l'État eh, tournoi drapeau chef de l'État nag participation foofu critère la pour nga sélectionnable boo xool bi ñuy sélectionné bari woon nañu mais au finish nag il faut cinq cinq leaders te leader bu nekk rek amoon nga deux sparring partenaires matoon nañ ou plus de quinze et c'est pour trier nag ci critères yu bari santé état physique poids de forme ak confiance sociale pour nga pour at bi nga jóge daal mooy daal foog Ambroise Sarr suivre la moom muy le coach mën nañoo gis ñun ñëpp ne kii moo baax moom mu gis ki baax te kii mu gis xëy na moo koy jël résultat ndax yàgg na ci pratiquement donc képp ku mu séchee rek dañ koy dañ ci mais newul ñoo ñu génne ñi ñoo leen mën ñëpp a yem mais il faut ñu choisir choix entraîneur rek ñu dafay difficile et c'est très bien ñu ñaanal leen ñu gàddu bi. la Sénégalais war a gën a bàyyi xel Niger bon boo nee Sénégal rek nee na Gambie booy de Sénégal ça c'est clair ay booy séeréer lañu ak ay booy joolaa donc loolu mooy wane ne Sénégal ak la et en fait ah maa ngi craindre kenn mais équipe yi nga xamante ne ñoo ci gën a dëgër da nga naan trio may génnee Gambie laay génnee. Niger ak Sénégal après derrière day am Nigéria parce que Nigérien yi seen dëkk dafa am bëri mais dañoo parce que ay anglophone lañu ay deux ans yu nekk trois ans yu nekk dañuy ñëw ci tournoi yi et te moment bi mujjee ñëw évolué nañu parce que il faut dire que ne c' est de très bons lutteurs olympiques mais lu traditionnel bi nag xëy na dañu xaw a faible mais daal ñett ba ñeent équipe yooyu daal ñooy les meilleures équipes quoi salaamaaleykum wa rahmatulah. premier combat baa ngi noonu dox ci diggante Sénégal ak Gambie mbokku Gambie yi ñoo def euh, ceinture bleu Sénégal ceinture rouge ñu ngi noonu première compétition bi ndaysaan ñu ngi noonu jàppante ne arbitre bi àtte na buux na ko nee nañ ci digg géew bi Sénégal Gambie ndaysaan ñu ngi noonu arbitre bi sifflé waat na Sénégal ceinture rouge bleu Gambie ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan 66 kilo ñu ngi noonu ndaysaan ñu ngi noonu Sénégal ceinture rouge Gambie ceinture bleue xale yaa ngi noonu jàppante nañ ndaysaan mu ngi koy bëgg a bët bañ na ndaysaan avertissement benn bëre ndeysaan xale yaa ngi noonu Moustapha saan ñu ngay jàppante rouge Sénégal bleu Gambie ñu ngi noonu ci compétition bi ñoom ñaari xale yi ndengeñante nañ wër na ko ndomba a sifle wala déet loxo bee simmeeku wala déet am na lu muy jàmbat daa mel ni joueur Gambie bi dafa blessé dem na arbitre bi sifflé waat na Sénégal Moussa Gambie ceinture bleu ñu ngi waat noonu premier combat baa ngi noonu ci compétition bi ñu ngi jàpp Sénégal jàpp na ndaysaan Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na ndaysaan Sénégal jàpp na Sénégal Gambie ndeysaan dañoo mën a bëre nag mbëru Gambien yi dañoo mën a bëre jàpp na ko wër na ko ndombo Sénégal wër na ko ndomba daan na senegal daan na senegal daan na senegal daan na senegal daan Sénégal daan na eh, ñu ngi waat noonu ndaysaan 86 kilos Sénégal soixante-seize kilos Sénégal rouge Gambie bleu saan ma nga noonu Sénégal Gambie fàqat na ko faqan na ko faqan na ko daan na ko Sénégal daan na daan na ko ndeysaan mbër ñaax Sénégal laay laay la ba eh allez les lions du Sénégal li ñu far far fos far far fos ndeysaan far far ndeysaan xale yaa ngi noonu avertissement 2 pour Gambie ah ñu ngi noonu arbitre bi sifflé na ndeysaan Sénégal ceinture rouge Gambie ceinture ndeysaan ñaari grand ndeysaan bleu ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ba tey ci compétition bi ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi Sénégal jël na tànk ba Sénégal jël na tànk ba mbaadu daa nar a bañ na xale ba bañ na mbëru Gambie yi dañoo mën a bëre ay ndaanaan lañ mbëru Gambie yi dañoo mën a bëre ay ndaanaan lañ dañoo mën a bëre ay ndaanaan lañ ndaysaan Sénégal Gambie arbitre bi siflewaat na temps ba jeex na arbitre bi ngi waaj a sifflé ah, nee nañ pare nañ Gambie ceinture Sénégal rouge ndaysaan bi mooy troisième combat ci compétition bi par équipe la ñu toll ci kaw Gambie Gambie amagul benn ndam bi mooy troisième combat bi ñu xool ba xam Sénégal day gagné ndaysaan wala déet ñu ngi noonu ndaysaan joor yaa ngi noonu ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan noonu na di jàpp ndenge ñente nañ ku ne di déglu sa moroom diggante Sénégal ak Gambie ndaysaan may nuyu Gambia yëpp wala suñu mbokk gambien yëpp ak gambien yëpp ñu ngi leen di nuyu di yoo xamante ne jël na tànk ba bañ na Sénégal Gambie senegal Sénégal Gambie ñu noonu atte nañu leen ndeysaan atte nañu leen avertissement disqualifié nañ ko ndeysaan ndeysaan Sénégal jël na arbitre waaj a sifflé ba tey 100 noonu Sénégal Gambie ñu ngi noonu ci 100 kilo bi ndaysaan ordinateur Sénégal Gambie ceinture bleu Sénégal rouge ñaari xale yaa ngi noonu di léewtoo Sénégal ak Gambie mbokk yi Sénégal am na ñaar ñett ndam ci kaw Gambie ndaysaan 100 kilo baa ngi nii ñu ko xam ci ordinateur moo ngemboo ngemb Lagos bi ceinture rouge Gambie ngemboo ngemb Lagos bi ceinture bleu ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan neuvième édition ndaysaan tournoi de lutte ndaysaan ñu ngi noonu ñaari xale yi ndaysaan ñu ngi noonu ñu ngi noonu ñoom ñaar jàppante ne waat dara xewagul ordinateur ndaysaan Sénégal Gambie bleu ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan arbitre bi àtte na kaay leen ci digg géew bi mu leer ndaysaan ñu invité leen suñu réew dóor leen dóor yi métti bàyyi leen ngeen ñibbi <laughs> loolu ay teraanga Sénégal teraanga bu Gambie ak mo ndaysaan ñu ngi noonu jàpp nañ ko jàpp na ordinateur jàpp na ordinateur jàpp na ordinateur jàpp na ordinateur jàpp na ndeysaan ordinateur jàpp na ndeysaan jàpp na bi na Sénégal Modou Faye ngi dox ci kawam. na nga noonu jàpp na. jàpp na. ndeysaan ñu ngi noonu. senegal gagné na. ndeysaan. arbitre bi sifflé na saan Sénégal ceinture rouge am ñaar booy amet bi baax ndaysaan kër Sira ngi woon ndaysaan Mouhamed Bousso alias Boy Faye daan na ndaysaan combat ci compétition bi ndaysaan ñu ngi noonu kan la. Côte d'Ivoire. arbitre bi sifflé na gis ngeen Sénégal ñëwaat na ci compétition bi. Ndeysaan mu ngi ne. Côte d'Ivoire. Moussa Faye Ndeysaan moo fare càmmoñ. Moussa Faye ñu ngi noonu Sénégal Côte d'Ivoire. Ah. Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal seen. Ndeysaan Côte d'Ivoire rouge. ñoom ñaar ñu ngi noonu. Ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi. jàpp na jàpp na jàpp na Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na wër na ko ndombo wala déet senegal jàpp na wër na ko ndomba senegal wër na ndomba Sénégal wër na ko ndomba senegal wër na ko ndombo senegal Côte d'Ivoire trois appuis daan na ko senegal daan na Sénégal Sénégal daan na. bu njëkk bi da koo gagné. tudd ndeysaan. combat d'Ivoire. mbokk ñu xool fu ñuy mujj ñoom ñaar. ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi lewaatoo. Sénégal Côte d'Ivoire. arbitre bi àtte na. lu xew avertissement Ngor ñaax Sénégal avertissement Nigéria Côte d'Ivoire. Côte ñu noonu. ay ñu ngi noonu. fàqan na Ngor ñaax ndaanaan la mbëru Sénégal bi ndaysaan Sénégal Côte d'Ivoire ñu ngi noonu ndaysaan ñu ngi jàppante Ngor daa bëgga a tànk bi fàqat na ko yóotu na tànk bi xale bi bañ na Côte d'Ivoire ay xale yu ndaanaan la ñu am xale yoo xamante ne mën nañ fomi dañuy bëree des fois nga yaakaar sénégalais yi ci jàpp dañ lay saax saaxee far mu mujjee metti ci ñoom gis nga xale baa ngay bëre Ngor ñaax Sénégal ceinture bleue Côte d'Ivoire ceinture na ko rouge bleu rouge bleu rouge bleu ñu ngi noonu Sénégal ndeysaan ñu ngi noonu rouge bleu rouge bleu arbitre bi àtte na avertissement avertissement ñoom ñaar ñëpp am nañu avertissement Sénégal am na avertissement ndeysaan Côte d'Ivoire am na avertissement ñu ngi noonu mu ngi koy jàpp saan jàppul ngemb li de wala génn nañ saako yi génn nañ arbitre bi sifflé waat na Ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan jàppaat na ko takk na ko daan ko Ngor ñaax daan na Ngor ñaax daan na Ndeysaan dafa wala daa crampe ñu jóge dëkkam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 daan na Sénégal daan ay cent kilos mu ngi noonu ndaysaan Sénégal ordinateur ak Côte ak Nigéria ak Côte d'Ivoire ba tey ñu ngi ci compétition bi jàpp na tànk ba bañ na ndaysaan bañ na mu ngi noonu ndeysaan dina du yomb du yomb ndeysaan du yomb jël na tànk bi ordinateur jël na tànk bi dina ko daan wala déet doo ci génn ñi la ëpp doole duñ ci génn day raam génn na saako yi Sénégal gañe na ndeysaan Sénégal gañe na Ndeysaan Sénégal gagné na Ndeysaan Ndeysaan Sénégal gagné na senegal gagné na Ndeysaan ñu ngi noonu 120 kilos Mohamed Bousso alias Boy Faye Ndeysaan ak Côte d'Ivoire ñu ngi noonu Ndaysaan Boy Faye plaqué na Ndaysaan jëli na ko bañ na Ndaysaan cent vingt kilos la Boy Faye jëli na ko daan na ko Ndaysaan daan na ko Boy Faye daan na Ndaysaan teral rek yanu ba ci suuf teral Sénégal Burkina Faso senegal moo ceinture rouge Burkina ceinture bleu ñu ngi noonu ci demi-finale yi 65 kilos ndaysaan ñu ngi noonu senegal Burkina Faso ndaysaan 66 kilos ndaysaan ñu ngi noonu 66 kilos Sénégal Burkina Faso. ndaysaan jàppante nañ mbot na jàpp ko daan na daan na moom daal xale bi ñàkk na caaxaan xale bi daal ñàkk caaxaan laa ko tuddee ndaysaan ndaysaan première victoire pour Sénégal ci wàllu demi-finale bi ba tey Sénégal ceinture Ngor ñaax Burkina Faso ceinture bleue arbitre bi sible na senegal am na benn ndam ci premier combat bi walla ci premier jongante bi ñu ngi demaat ci deuxième jongante bi Ngor ñaax Sénégal ceinture rouge Burkina Faso bleu ñu ngi noonu ñu ngay lewaatoo dara xewagul jàpp na ko Ngor ñaax Sénégal. génn nañ saako yi kaay leen waat kaay leen ndeysaan kaay leen baa ngi noonu di waaj a sifflé laaj na joueurs pare nañ arbitre bi sifflé na ndeysaan Sénégal Burkina Faso Sénégal ceinture rouge war la ginnaaw Burkina ceinture bleue ndeysaan ñu ngi noonu Ngor Ñaax moo ci nekk noonu mooy deuxième combat bi ci wàllu 76 kilo daw na jëli ko mu bañ ndaysaan gaañu na wala déet gaañu na déet ndaysaan Ba suñu mbokk burkinabé bi dafa gaañu ci épaule. arbitre baa ngi leen woowaat na ñaari ndaanaan yi sifflé waat na Sénégal Burkina Faso Sénégal ceinture rouge Burkina bleu ndaysaan ñu ngi noonu ci wàllu 76 kilos bi ndaysaan Burkina ak Sénégal ndaysaan Burkina Sénégal ngóor ñaax naan ndaanaan ndaysaan ñu ngi noonu Sénégal ndaysaan ak Burkina Faso ngóor ma ngi koy ko bëgg a jàpp ndaysaan ngóor a ngi ko bëgg a jàpp Sénégal Burkina Sénégal Burkina jël na tànk bi Ngor jël na tànk ba Ngor jël na tànk ba ñu ngi koy waaj a mbot bañ na da ciy génnante wër na ko ndomba Ngor ñaax wër na Sénégal Sénégal yanu na ko ba ca kaw dóor ci suuf teraanga lii la ñu xam teraanga làmb moom yanu ba ca kaw dóor ci suuf rek lii daal mooy teraanga allez les lions du <laughs> réewu teranga la yëkkati nañ sa loxo dinañ la may nga lekk may la nga naan bu arbitre prime ñu yenn ba ci kaw dóor ci suuf. Ndeysaan ñu ngi toll ci demi-finale yi ci wàllu 86 kilos bi Ndeysaan muy ngóor ñaax wala gànja faama Ndeysaan ma nga noonu ngóor ñaax moo daan léegi gànja daw na jëli ko génn na saaku yi indiwaat na ko. ndeysaan moom Gandia Fama arbitre bi sifflé waat na ndeysaan ñu ngi noonu Sénégal 2 Burkina 0 ñu ngi noonu Sénégal am na ñaari ndam ci demi-finale bi ndeysaan par équipe bu ñu def compétition par individuel ginnaaw suba ñu def finale bi ndaysaan boole raay yëpp teg par équipe ak par individuel ndaysaan lii mooy làmb ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan ma ngay daw ma ngi koy yóbbu ma ngay daw da ko bëgg a jàpp ndaysaan gànja faama bañ na fàqat na ko wër na ndombo da koo bëgg a buddi bañ na Burkina bañ na da koo bëgg a dóor dóor na ko ci suuf daan na ko Sénégal 3 Burkina 0 yanawti nañ ko ba ci kaw dóor ci suuf wala xam ci teraanga ci kaw dóor ci rek teraanga ba ci lan bu seqee compétition bi di ñaan ba ci kaw dóor ci suuf déedéet teraanga bi moom ci biti waaye bu arbitre ne prime ah yanu dóor ci fi xew ndaysaan xale baa noonu ma nga noonu ndaysaan ma ma nga noonu ñu ngi noonu ndaysaan waaj a siffler senegal deux avertissement Burkina arbitre bi sifflé na Sénégal Burkina Faso ndeysaan ñu nga noonu daw na jëli ko Sénégal daan na Sénégalais Sénégal gaañ na ndeysaan Sénégal 3 ordinateur daan na 100 Ndeysaan catégorie 100 kilos ordinateur Ndeysaan ma nga noonu ñu jëm ci arbitre baa ngi sifflé sifflé na 120 kilos Mouhamed Bousso alias Boy Faye ceinture rouge. bu jàkkaarloo face au bleu. Sénégal qualifié na final. ci par équipe. Ndeysaan Mouhamed Bousso ñu noonu. jël na daan na. Ndeysaan jeex na. Boy Boy Faye daan na Sénégal qualifié na en finale ndaysaan neuvième édition ndaysaan tournoi de lutte africain CEDEAO Sénégal qualifié en finale mu des deuxième demi-finale bi arbitre bi sifflé waat na ndaysaan ñu ngi noon ci 66 kilos bi entre Niger ak Nigeria ñu ngi noonu ci compétition bi jël na ko Nigéria jël na Nigéria jël na Nigéria jël na Nigéria jël na Niger Nigéria yenu na ko ba ci kaw Nigéria jël na Niger Nigéria jël na Niger daan na ko laa ilaha illallah Nigéria yenu na ko ba ci kaw dóor ci suuf eh Nigéria Niger Niger am na ndam ndeysaan Niger ceinture bleu rouge Nigeria bleu Niger ak Nigeria Niger Niger oui ceinture rouge ak bleu 76 kilos ñu ngi noonu ci compétition bi Niger Nigeria ñu ngi noonu ndeysaan Niger Nigeria Niger Nigeria ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi ci compétition bi Niger Nigeria yi Sénégal qualifié na en finale ndeysaan ñu ngi Niger Nigeria jël na tànk bi Niger jël na tànk bi Nigeria bañ na Nigeria jël na tànk bi daan na ko wala déet daanu ko ndeysaan xoolal ma entraîneur Nigeria ba nee na non bu la gañe na xoolal ma ba ma ngay fecc ngay yëngal nday Niger Nigeria 2 pour Nigeria 0 pour ñu ngi noonu ndaysaan arbitre bi sifflé na Niger Nigeria Niger ak Nigeria ñu ngi noonu centre rouge Nigeria Niger bleu Nigéria Niger daw na jëli daw na jëli ko Niger daw na jëli ko Nigéria fay na ndeysaan 2-1 eh compétition bi kaa baa ngay critique de 2-1 arbitre na ndaysaan ñu ngi noonu ci compétition ba tey ci demi-finale bi Niger Nigeria Nigeria jëlee na tànkam Niger daan na ko Niger daan na Nigeria Niger daan na Nigeria yàgg na def nga trois bu yàgg Niger daan na Nigeria waaw waaw victoire pour Niger 2-2 eh cas bi critique na. dem nañ final de. Niger Nigeria ñu ngi noonu ci compétition bi ku daan am Sénégal final arbitre bi sifflé na Niger ceinture rouge Nigeria bleu arbitre bi sifflé na Niger Nigeria Niger Nigeria Niger Nigeria ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi ci compétition bi cent vingt kiloy yi Niger Nigeria Niger Nigeria Niger Nigeria ku da dem final am Sénégal ñoom ñaar ku ci daan qualifié nga final Niger Nigeria Niger Nigeria Niger Nigeria arbitre bi na kaa ci biir géew bi ndeysaan Niger Nigeria mi noonu ci compétition bi ba tey demi-finale bi Niger Nigeria Niger Nigeria ñu ngi noonu ci compétition bi Niger Nigeria ndeysaan ñu ngi noonu Niger Nigeria Niger ceinture rouge Nigeria ceinture bleue ndeysaan ñu ngi noonu ci demi-finale bi Niger Nigeria ndeysaan Nigeria Niger ndeysaan Nigéria Niger ndeysaan Nigéria Niger ndeysaan Niger Nigéria Niger Nigéria ñu ngi ci compétition bi Nigéria Niger Nigéria Niger Nigéria Niger Nigéria Niger Nigéria am na ndam ci kaw Nigéria Niger qualifié na Niger qualifié na final jërëjëf mbokk yi loolu moo nekkoon première journée li nga xamante ne mooy neuvième édition ah, tournoi bi nga xamante ne mooy drapeau tournoi CEDEAO mbokk yi tey gis ngeen Sénégal qualifié na final dox diggante Sénégal ak Niger ñoo war a laale ci final bi suba dinañ indi compétition bi nga xamante ne mooy par individuel loolu lañ leen fi dégtaloon ba suba incha allahu rabbi ñu indi waatal leen leneen di leen jaajëfal ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf.